mbokk auditeur auditrice réew mi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jot 15 heures jàpp 16 heures tey ñu dalal coro Sar Ndiaye nekk professeur euh, de lettres modernes nekk lauréate du premier prix FAWE Afrique sur les initiatives euh, des enseignantes africaines durant la période de euh, pandémie ñu fas yéene waxtaane situation bi ñu nemmeeku jamono ji ci suñuy lekkool incivisme ak Euh, violence bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku euh, di gërëm Bachir Cissé moo nekk ci partie euh, technique bi Thioro Sar Ndiaye ma bàyyi la nga nuyoo bokk auditeur auditrice réew mi FM yi lay dégg. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant auditeurs yi ak auditrices yi di déglu réew mi FM. Mm-hmm. di nuyu Khady aussi. di nuyu Basirou Cissé mi nekk suñu wet moom tamit. Mm-hmm. di leen souhaiter une écoute. Mm-hmm. et j'espère que l'émission va très bien se passer maa ngi profité aussi di nuyu sama yaay. parce que mënuma ko bañ a nuyu. Mm-hmm. di nuyu suñu waa kër di nuyu waa Fawe ak sama waa école lycée Aminata Sow Fall. Mm-hmm. Euh, kan mooy Thioro balaa ñuy dugg ci biir euh, sujet bi kan mooy Thioro defal ñu benn présentation rek euh, ci Thioro ak li nga xam ne ci lay yëngatu. alors j'aime pas trop faire ma biographie mais bon tey moom dinaa wax donc man maa ngi tudd Thioro Sarr njaay Ndiaye mooy sama sant jëkkër madame Ndiaye Thioro Sarr Aminata Sow Fall bu moom mooy lycée Aminata Sow Fall mooy ex Padois Buldeuse mhm. euh, di yëngatu tamit ci mbirum jigéen ndax mhm. euh, maa ngi en même temps je suis la chargée de communication bu conseil sénégalais de femmes mhm. euh, di yëngatu tamit ci mbirum njàngum français bi ndax man maay tamit chargée de communication association sénégalaise de professeurs de français donc ak yeneen ak yeneen d'accord tey ñu tànn la tey pour fas yéene waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku fii ci école yi parce que yow daanaka ab éducatrice nga ndax euh, ba ngay recevoir sa prix bi maa nga fa teewoon te gis dégg naa témoignage yi dégg naa li nga xam ne euh, moom la ñëpp daal di wax daanaka éducatrice nga gën a doon sax que enseignante euh, gis nañ li nga xam ne moo fi amoon daaw ren mu amaat xale yi ba ñuy tëj gis nañ ñu def saccagé euh, seen salle de classe yi xotti nañu seen blouse yi yow tey ban regard nga am ci suñu école école sénégalaise. waaw man en tant que maire et éducatrice et enseignante euh, dama koy naqarlu te xam naa ne ni ma ko naqarluwee moom la ko ñëpp naqarlu Sénégal yëpp. Mm. Euh, di wax ne rek que ni non seulement man rafetlu ma ko société bi rafetlu ko. Mm. te xam naa ne monde bi yëpp kenn rafetlu ko. Mm-hmm. ndaxte bu ñu gisee ñun jàngalekat yi xale yi nga xamante ne ñoom la ñu yaakaar ëllëg. Mm-hmm. ñu war a assurer relève. Mm-hmm. ñu gis ne ñi ngi def yoo xamante ne ay actes yoo xamante ne incivisme la. du loo xamante ne ñun war nañ ko mën a rafetloo. te am na ay coobere yoo xam ne war nañ ko cee mën a dox ñun en tant que jàngalekat. war nañ ko war nañ ko ci mën a dox en tant que mère parce que mm-hmm. balaa ñoo yegg ci école yi ci biir kër yi lañ nekk mm-hmm. war nañ ko dox en tant que éducatrice aussi comme ni nga ko waxee mm-hmm. donc ñun jigéen ñi surtout parce que ñetti casquette lañ boole donc lii rafetlu ma ko te xam naa ni parents d'élèves yi nga xamante ne seen doom def nañ ko tamit rafetlu wuñ ko te c'est à corriger Uh, nee nga defaat nañ ko fi. mais man daal lii sama coobare mooy bu mu amati Sénégal. defoon nañ ko daaw coro yaa euh, ne du ñu dàkk euh, xale yi donte conseil de discipline bu école ba bi nga xam ne amoon na daaw lycée bu aan bëggoon na dàq élèves est-ce que du fait que daaw sanctionné wu leen moo tax ren ñu daal di koy defaat. alors man foog naa ne décision wu IA lu moo tax ñu delluwaat defaat ko c'est que jikko yi lañu war a defaraat te jikko yi mi ngi commencé d'abord si ñun mag ñi. ci ñun mag ñi parce que ñu ndaw ñi ci mag ñi la ñuy xool. Mhm. te bu fekkee ne ñun mag ñi deful luñ jikko yi ba mu rafet xale yi ci ñun la ñuy xool te ñoom it na nañoo toppandoo loo xamante ne du du loo xamante ne lu jub la. Mhm. wala lu jaar yoon. Mhm. iyaa nag bi ma décidé loolu da comme ni ma la ko waxee rek moom tamit iyaay la jàngalekat la te réaction bi mu am bi mu ko waxee tamit dafa ne rek munuma leen bàyyi ci mbedd mi. ndax xale boo ko génnee école bàyyi ko ci mbedd li nga koy ragalal ci école bi bu demee ci mbedd mi dina fekk lu ko gën a raw. Hmm. te xam naa ni IA elle la parlé avec le cœur d'une mère. Hmm. moo tax mu mu waxee noonu ndax xam nga rek xolu yaay nu mu mel ci doom. Hmm. te buggul xale itam ñu sànk leen. mais terewul tamit war nañ leen mën a corriger am na yeneen sanction yoo xamante ne mi ngi fii les travaux d'intérêt général. au lieu que ñu dem ci côté répressif bi ñu jël leen liggéeyloo leen parce que man li ma li may wax rek mooy école xale yi ñu ci bari dañu xamul ne lii bien public boo xam ne man dama cee bokk. Mm-hmm. maanaam approprié wuñ li nga xamante ne fa la ñuy dem mooy seen école. mais bés bu ñu defee de sorte que ñun jàngalekat yi xale bu ñëw ci école xam ne école bii daa mel ne sama biir kër. Mm-hmm. ndax nee naa la foo toog neuf mois ci douze foofu. defe naa ni nga ko war a toppatoowee moo war a sax sut que ni ngay toppatoowee sa kër. Mm-hmm. te nee nañ tubaab yi nee nañ c'est l'environnement qui fait l'homme mm-hmm. ah man de bañ dama koy tàmbali ci man man bu ma duggee classe. Mm-hmm. gis ne setul élèves yëpp ay bale amul góor amul jigéen. bale boobu ñuy bale suñ ko balee pour man dinañ xam ne fii comme sama kër laa bale. ndax table banc yooyu ñu damm di ci toog neuf mois. da lay leer ne bu ñu approprié woo école publique bi. xam ne lii ci laa bokk lii am naa ci cër lii am na loo xamante ne maa ko ci moom. Mhm. dina tax bu beneen yoonatee dina ne ah tablement bi su ma ko dammee kon déwén ci lan lay toog. Mhm. wala déwén man su ma ci jógee sama rakk ci lan lay toog. Mhm. donc appropriation boobu je pense que ñun enseignants yi dañoo war a mener un combat. ba nga xam ne xale yi ku ci dugg sa école rek daan ne fii sama kër la. ndax sa kër doo nangu benn étranger ñëw di fa dugg mhm. di fa def lu mu fa warul def mhm. mu fay damm table wala mu fay damm kudd wala mu fay jël kudd ci waar wala mu def fa loo xam ne waru ko fa def mhm. donc loolu aussi am na solo ci ñun enseignants bu ñu war a mën wax nga lu am solo euh, yéen seen part de responsabilité enseignants yi mais léegi Thioro gis nañu euh, relation yi entre enseignants yi ak élèves yi lu ci bëri demeewul noonu euh, yaay gis xale boo xam ne dinañ ko dàq wala dinañ ko sanctionner parce que ni muy waxee ni muy eh, tontonteeg ak ak enseignant ak ki nga xam ne moo koy jàngal est-ce que li nga wax noonu mën na am tant que diggante relation defuñu relation bi entre xale bi jàngalekat bi ak xale bi. loolu moo tax aussi approche pédagogique am importance. Mm-hmm. ndax jàngalekat boo nekkee ak say élèves. c'est vrai que am na ay limites am na ay barrières. Mm-hmm. mais c'est pas intéressant toujours jàngalekat nga ñëw saa yoo duggee sa classe ñëpp tiit. ngay jouer au gendarme saa yu la xale yi gisee daw di la làqatu ndax euh, relation bi ngay wax noonu entre enseignant bi ak élève bi lu bëri mën na ko régler mm-hmm. ci kaw lan ndax xale bu la ñemee dina la wax lu ko naqari bu la ñemee dina confier wu ci yow bu la ñemee dina tax aussi mu accroché wu ci sa matière ndax xale bu la ragalee mën na am buñ nee cours français ba ah lii mu tàmbali huit sax bu ko neexee sax bu réveil am sonné mu taafantaloo pour bañ a ñëw. Mhm. ndax dina ne ah cours de cours diw de bu ma ci ñëwee ah maa ngi ciy dem waaye. Mhm. mais tant que yow yaa ngi leen di accroché ba nga xamante ne ñeme nañ la mais waxuma ñeme boo xam ne yabel lay doon. Mhm. ñeme booy xam ne kii dina xam ne aussi parce que xale dina ñeme yaayam. Mhm. mais du ko yem. Mhm. mais ñeme boo xam ne dina tax non seulement ñu accroché wu ci yow mais ñu accroché wu ci école bi. Mhm. parce que loolu aussi mën na indi ay causes yu bëri parce que xale boo xamante ne am na distance. entre moom ak enseignant yu bari dina la ëmb ci classe. wala mu ragal ko sax. waaw dina la ragal yu bari dina la ëmb ci classe te gis nga proximité boobu boo ko amee ñoom. am na yoo xam ne buñ la koy nëbb ci classe bi sax di ko yëg. parce que di nga ci am ñoo xamante ne attaché wu nañ ci yow ba xam ne lii ñu def par exemple du yoon ci classe bi ñoo ñëw ndànk wax la ko dee la ko ne la madame wala monsieur nii wala nangam wala nangam. Mm-hmm. donc enseignants yi aussi war nañ cultiver loolu. Mm-hmm. gën a xëcc xale yi suñu bopp pour nga xamante ne dinañ leen mën a wax yu bari ndax ci communication boobu noonu loolu mooy tax. échange yi ngay def ak ñoom yu bari nga mën leen ci conseil mhm. yu bari nga mën leen ko moytuloo mais tànk rek ñu ngi indi distance boo xamante ne écar la mhm. xale yi di ñu sori yu bari duñ ko mën a régler mhm. mais loolu nga foog ne dina yomb parce que li tey boo xoolee ñu bari dañuy dugg ci enseignement ndax ñàkk pexe parce que liggéey amul du coup ñoom xale bi li mu mën a def comportement am seen yoon nekku ci ñoom nañu ñëw terminer seen programme xale bi jàll na wala jàllul seen yoon nekku ci l'essentiel c'est de faire leur devoir donc du enseignants yi aussi ñoom am nañ ci itam par de responsabilité. waaw loolu moom dëgg la mais li ma bëgg a wax rek mooy sama mbokk jàngalekat yi ñi nga xam ne par saa yi dañuy tëne discours naan man damay jàngale par accident. ñàkk pexe bari na si. loolu moom wax dëgg fa yàlla wax boo xamante ne dañ kaa war a gas fu xóotu xóot suul ko fa ba kenn dootu ko déggati. ndax même bu ñu nekkee salle des profs dama naan sama collègue yi li ñuy wax fii nañ ko moytu parce que. Mhm. xale yi dañuy toog sa si parenté yi di déglu. Mhm. te comme enseignant référence la exemple la am na yu bari yoo xamante ne ci sa discours. Mhm. yow waroo ko tenir ndax boo nee jàngale dama ko def par accident. pour man métier. boo ci duggee sax même bu dee hasard moo la ci dugal. war nga koo mën a def passion. war nga koo mën a def loo xamante ne danga naan lii sama sutura ci la nekk. te liggéey boo koy def da nga war a jox àqam. Mhm. te loolu aussi c'est très très important. Mhm. le discours des enseignants. parce que xale dafay déglu te lu mu déglu ba xës mu dëgg si noppam. Mhm. doot ci gaaw a dañ. donc ñun suñu langage dañ ko war a soigner suñu comportement dañ ko war a soigner suñu solin suñu jëfin. parce que lépp lu ñuy def rek xale yi ñu ngi koy xool. te xale du fàtte te xale li li ma la wax rek yow li mu lay gis du ko gis sax yaayam. donc yow enseignant muy bu góor bi papa nga ci élève enseignant muy bu enseignant bu jigéen bi aussi yaay la ci élève donc on doit être tous une référence wax que ni métier bi dañ ko choisir man bu ma ko déggee daf may naqari parce que mhm. pour man jàngale c'est le plus beau mhm. nee naa jàngale ak médecine mhm. amul métier yoo xam ne ñoo ko gën a noble nit nag bu fekkee na ngaa xeeb sa bopp keneen ku la xeeb doo ko mer mais yow boo toogee ne damay damay jàngale par accident mooy xeeb nga sa li ngay def mm. suñu liggéey dañ ko war a valoriser parce que jàngale du ay caaxaan jàngale bëri na loo xamante ne da koy defal defar laa wax na ko. Mm-hmm. éducation li muy defal ci société dafa bari. Mm-hmm. donc du loo xamante ne war nañ ko négliger. Mm-hmm. dañ ko war a cëral dañ ko war a fonk dañ ko war a dañu war a def loo xamante ne ñun ku ñu gis naw ñu. ñu gis def ñu exemple. Mm-hmm. man ñi ma jàngal ay at a ngi nii mais man ba léegi ce sont des références pour moi. Mm-hmm. c'est parce que si seen comportement si seen jëfin ci seen waxin ci seen mm-hmm. defin. donc man loolu pour man enseignant bu nekk yow ci sa jëfin sa waxin sa defin war nga def loo xamante ne ëllëg dans dix ans boo gisee sa élève doo am kersa. te aussi euh, enseignant bu nekk je pense que war na nekk d'une part benn assistance sociale war na nekk aussi. éducateur wala éducatrice parce que xale bu nekk ak sa jikko ak xale bu nekk la ngay jëlee sa biir kër yaa gis xale boo xam ne mën na ñëw classe aussi euh, euh, fermé bu gis xale boo xam ne euh, violence rek yaa gis xale boo ku ci nekk daal li nga xam ne moom ngay jëlee sa kër boo ko indee ci école ba aussi enseignant yi war nañ am benn regard aussi ci loolu je pense. waaw loolu moom mooy li ñuy wax rek naan école mook société bi dañoo soriwut. Mhm. lii xew ci kër ga. parents ay xale yi moom la ñu indi école. te après moom mooy def société bi donc enseignants yi li ma la noo wax distance boobu noonu su amee am na yu bari yoo xam ne duñ ko xam ci élèves yi mm-hmm. élève dina ñëw école fekk lekkul élève dina ñëw école fekk am na ay problème ay euh, seen kër mm-hmm. mu am ay parents yoo xamante ne dañoo violent mm-hmm. mu gis ay mu nekk ci contexte boo xamante ne ay violence rek lay gis te loolu enseignant mën na ko dindi effectivement gis nañ élèves yoo xamante ne par exemple problème mu divorce seen famille. Mm-hmm. mës nañ ko am am kaaw élève boo xam ne divorce seen famille donc ak yeneen kaa yoo xamante ne après yow boo rapproché woo élève bi mm-hmm. di nga dem ba résoudre problème parce que mm-hmm. dañuy dem ba vers l'abandon scolaire te yow bu fekkee ne wax ngaa ñoom am na noo xamante ne mën nga leen mën nga ko def ba nga xamante ne di nga leen indiwaat ci école bi te loolu tamit c'est avec le parent donc rupture warul am entre élève bi ak enseignant bi mais le parent d'élève aussi donc les APE am na rôle boo xamante tamit aussi war nañ ko ci jouer mooy association parents d'élèves yi nga xamante ne dinañ mën a mànkoo booloo liggéey boo xamante ni dañ koy def ñun ñëpp boole ko pour le bien de l'élève mhm. euh, bëgg naa aussi ñu waxtaan ci euh, réseaux sociaux yi tey euh, madame sar gis nañ tey xale yi liiratuñu te loolu aussi enseignant bi la ñuy joxañ baaraamu tuuma ba léegi <laughs> xale yi léegi réseaux sociaux yi moo jël place su lecture bi yenn série yi nga xam ne ñu ne aussi kenn demul ñu des ñun tamit programme yi nga xam ne moom la ñuy proposé ci télé yi rajo yi tey méngootul ak xale bi nga xam ne moom la war a jàng xale yi mu mel ni tey amatuñu repère réseaux sociaux yi rek dëgg la noo leen di gérer loolu est-ce que xale yi ñu ngi lire ba léegi. bon lecture bi moom xam naa ne loolu moom dañ ci ñaaxaat suñu ministre. Mhm. de tutelle mooy le ministre de l'éducation mhm. nationale. mooy que ni ñu généraliser ci collège yeeg lycée yeeg école élémentaire yi yëpp incha allah bu mënee nekk mu am bibliothèque. bibliothèque parce que bibliothèque espace la boo xamante ne. en dehors de li ngay jàngale ci miiru classe yi. Mm-hmm. par yenn saa yi nga génn ak élèves yi. Mm-hmm. alors man moom lecture euh, combat la pour man parce que élèves yi man samay élève dañuy liir mm-hmm. euh, bu fekkee ni ngi may déglu mën nañ maa seede. ndax je toujours pour que. même boo amul livre bi parce que comme xam nañu on est à l'ère du numérique. Mhm. nga autoriser parfois portable pour que ñu mën a def lecture télécharger document bi. Mhm. livre bi en PDF. Mhm. am ko seen téléphone. ndax buñ ko liiru sax en version papier. ñu am au moins. version électronique bi xam nga mhm. au moins di nga leen wan ne nouvelle technologie du loo xamante ne toujours mhm. usage bu bon nga ciy def voilà mhm. mën nga ko utiliser ak usage boo xamante ne na la a njëriñ maanaam nga jël sa livre télécharger ko ci biir mën koo liir sa livre au programme comme d'autres livres effectivement voilà donc lecture bi tamit lenn tam am na Sénégal man bi ma nekkee xale je me rappelle presque foo demoon ci quartier yi am na bibliothèque municipale bibliothèque municipale yi nag ñoom ñëpp gisatuñ leen presque yëpp a disparaître te bibliothèque municipale moom c'était un lieu boo xamante ne man sama ñi ma tollooloon génération. Mhm. fa lañ daan dem di liir bu ñu amul bibliothèque suñu kër wala ay livre fa lañ daan dem di lañ daan dem di jàng mhm. donc bibliothèque buñ ko amul sax ci école bi da lay mhm. leer ne boo demee ci quartier bi di nga am bibliothèque boo xamante ne mën nga fay lire. donc je pense que les bibliothèques municipales aussi war nañ ko war a mën a indiwaat ci quartier yi mu nekk espace boo xamante ne élèves yi dinañ fa mën di dem. di épanouir di en même temps mën di fa organiser activité de lecture ak yeneen activité mm-hmm. donc loolu aussi c'est très très important pour man. Ah, mais loolu dina métti de ak euh, <laughs> réseaux sociaux yi Facebook fii WhatsApp fii Instagram fii euh, TikTok bi nga xam ne jamono ji ay challenge la ay xale yi léegi woykat yi euh, ñi ak sport bi danseurs yi ñooñu daal ñooy seen repère léegi. mais li nga doon wax tamit ci médias yi parce que média yi aussi am nañ seen rôle. voilà ak médias yi tey gis nga Génie en herbe autant bi nga xam ne RTS mu ngi organiser loolu amatul ay seen petit gàll ngay dégg dëgg la. ak ay série yoo xamante mhm. ne euh, xale yi buñ koy seetaan man bari yenn saa yi mhm. damay man tàmmuma seetaan télé ndax lépp presque ci téléphone bi mais su mu bari damay seetaan benn série gis benn wax ñu wax ko ma tiit mhm. ma ni waa lii nan lañ ko mën a waxee te nga xam ne heure bi par exemple xale yi nelawuñ te ñu ngi déglu te ñu ngi seetaan alors je pense que comme ay concept seen Petit Gallé au lieu de toujours aller vers la chanson musique xale yi mën leen initier aussi ci ay séances de espace boobu ñu nekk noonu pendant toutes les vacances. ban télé rajo tey nga dégg muy initier genre yooyu yéen en même foo ko dégg ci. justement <laughs> justement donc j'en profit pour def mm-hmm. appel. Mm-hmm. médias yi yëpp muy muy muy télé yeeg rajo yeeg yëpp. et ñu accorder aussi cette partie là maanaam culture parce que culture dafa nekk loo xamante ne lu am importance la. Mm-hmm. lecture. tamit c'est très très important te léegi de plus en plus émission yooyu mhm. comme ni nga ko waxee rek yëpp a disparaître amatul yëpp a donc mhm. il est temps quand que rédacteur en chef yi quand même mhm. ñu def combat boobu ak seen personnel yëpp pour que ci programme yi ñu boole ci yooyu. Mhm. maanaam lecture. Mhm. échange génie en herbe question pour un champion ak yooyu yëpp. Mhm. concept yooyu am fële ci yeneen dëkk yi. yu ci bari yoo xamante ne parce booy copier aussi da ngay copier bu baax. bu baax waaw parce question pour un champion boo xoolee par exemple ñun ñi ñëpp presque ñu ci bari dañu daan toog di ko seetaan. bien que defee ñu ko suñ dëkk. donc genre yu mel noonu bu ñu ko organiser Sénégal encourager élèves yi que ñu dugg si. loolu aussi mën na changer comportement yu bari. mën nañ ko def sax en utilisant les réseaux sociaux. parce que effectivement terewul euh, léegi am na loo xam ne mën nga ko organiser. Mhm. xale yi participer ci en ligne. Mhm. même à distance parce que y a plus de distance. avec mhm. nouvelle technologie. ça euh, te dina permettre sax xale bi mu gën a am culture général uh-huh. mu am culture général surtout au lieu ñuy euh, privilégié li nga xam ne mooy fecc beek way beek euh, snap yi mm. fecc woo dugal ci réseaux mm. sociaux yi. Mm. xool ku gën a am le nombre d'abonnés vraiment ñun ñooy promouvoir li nga xam ne moo di médiocrité. fii ci Sénégal te loolu yëpp war nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité muy journaliste yi di enseignants yi di mm-hmm. parents yi donc waruñu joxoñ baaraamu tuuma xale yi rek uh-huh. Euh, ñu wax ci les cours euh, d'instruction civique éducation civique mu mm-hmm. mel ni léegi amatul pratiquement ci mm-hmm. école yi mm-hmm. éducation civique amatul ñun autant je me rappelle c'était la matière des tricheurs euh, cours la woon boo xam ne dañ ko négligé woon tellement te pourtant cours la boo xam ne li mu la mun a apporter dans le futur yow mënoo ko xam yow est-ce que d'accord nga le fait école yu bari tey dañu dindi boobu matière. alors éducation civique moom loo xamante ne lu mënul ñàkk la te pour man du loo xamante ne prof histoire géo rek moo ko war a jàngale prof bu nekk civisme. Mm-hmm. am na loo xam ne mën nga cee mën nga ko cee indi. Mm-hmm. muy prof français ba di prof anglais ba di prof arabe ba di keneen maanaam ci deux heures cours boo am rek dix minutes yoo jël am na loo xamante ne. Mm-hmm. mën nga ko junj xale yi. en matière de civisme. Mm te loolu noonu ñun suñu rôle la ñun ñëpp jàngalekat yi. Mhm. te xale yi pour man loolu lu tax mënul ñàkk parce que civisme boo ko amul conséquences yi mën a indi ci société dafa bari. Mhm. parce que civisme boo ko xoolee manque de civisme toujours mooy indi violence. donc ce sont deux choses yoo xamante ne dañoo liggéey mhm. xale yi bu fekkee ne amuñu civisme alors civisme en parlant de civisme au-delà de ñun suñu rôle. Mm-hmm. bi nga xam ne mën nañ ko apporter. Mm-hmm. alors je pense que euh, y a un concept qui a été initié par le président de la République c'est-à-dire la levée des couleurs dans les lycées. Mm-hmm. alors dañuy choisir. loolu est-ce que mi ngi am ba léegi. mi ngi am ba léegi parce que ñun ren jii rek suñu école def nañ ko. armée ñëw. Euh, sapeurs yi ñëw ak yépp. donc proximité boobu entre armée ak ak ak élèves yi. que ça soit mu nekk ci contexte su levée des couleurs donc levée des couleurs déjà principe boobu président de la république initié bu ko mënoon généraliser ba nga xam ne école yëpp a koy def parce que ci loolu noonu contact boobu ñuy am entre armée ak élèves yi dina am lu bëri loo xam ne da leen ciy junju parce que dinañ xam boo boo xoolee ñun par exemple mi ngi ko organiser suñu école lycée Aminata Sow Fall da ngay gis ne ni ñuy wanee di ko wormaal suñu drapeau da ngay xam ne ñii am na loo xam ne ñi koy wan élèves yi ñu koy gis pour wan leen ni lii du caaxaan. Hmm. te ku fonk sa drapeau mooy fonk nga sa réew. te ku fonk sa réew aussi mooy fonk nga fonk nga société bi yëpp. Hmm. ndax civisme moom bu ñàkkee rek société du dox. Hmm. que sa que soit sur le plan économique te développement sax dootul ñëwati. donc civisme loo xamante ni mënul ñàkk la donc proximité boobu noonu ma lay wax noonu entre armée ak élèves yi. même bu ñuy def aussi fête 4 avril élèves yi généralement dañuy participer. Mhm. te bu ñuy participer généralement dañuy am proximité ak ak ak ak armée. Mhm. proximité boobu ñuy am noonu nag échange yu bëri mën na am entre ñoom. Mhm. te mën nañ leen initier. conscientiser leen ci yu bëri. Mhm. et au delà de ça aussi ñun enseignants yi aussi am nañu rôle boo xamante ne de sensibilisation. Mhm. boo xam ne dañ ko war a def auprès de nos élèves. Mhm. li ma lay wax naan la man classe bu ma ci duggee mu salte sax ma élèves yi da ngeen koy bale. ndax buñ ko balee tey dinañ xam ne suba bu bu tilimaatee dinaa ko bale te fii. am na lu ma ci am na loo xam ne bokk naa ci. fii am na loo xam ne am naa ci cër. donc dinañ ko approprier wu y a d'autres principes yoo xamante ne mhm. mën enseignant mën na jël initiative élèves yi collecté ku ne fukki dërëm bu ko joxee ñu ne suba dañuy peinture ñu peinture mhm. sa classe classe bi buñ ko peinturé ba pare di xool ne ku ci dugal sa fukki dërëm doo bëgg sax ñu xoos ko mhm. ndax da naan lii buñ ko xoosee ah dugaloon naa ci sama xaalis. Mhm. donc danga naan lii kon ma am na lu ma ci bokk. loo mhm. xamante ne bokk naa ci. Mhm. donc doo bëgg ñu yàq ko te yooyu yëpp ay forme d' initiation au civisme loo xamante ne enseignant mën na jël initiative yi pour dund ci xale yi ba nga xamante ne na tax ñu gën a fonk suñu école yi. parlant de l'armée ma fàttali mbokku auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu jël en cours yéen a ngi déglu seen émission espace jeune euh, tey ñu dalal Thioro Sarr Ndiaye professeur lettres modernes éducatrice également nekk lauréate euh, du premier prix FAWE Afrique sur les initiatives des enseignantes africaines durant la période de pandémie euh, yaa ngi wax affaire armée mais coow li ba mu jibee am na ay sociologue ak i ancien commissaire yi nga xam ne proposé nañ armée bi pour tous pour képp ki nga xam ne am nga 18 ans 17 16 17 ans 18 ans nga def armée pour au moins xale yi jàng lan mooy civisme est-ce yow ànd nga ci loolu. alors service bon service militaire obligatoire bi. Mm-hmm. bon àll <laughs> bon ci moment yi ñu toll nii ah, est-ce que réellement mën nañ aller vers ça mën nañ dem ci loolu lenn mën na nekk mooy li ma lay wax. am na y a des moments qu'on peut pour fair la promotion du civisme dans mm-hmm. les écoles mm-hmm. nga xamante ne armée mën na ñëw mm-hmm. sapeur mën na ñëw gendarmerie mën na ñëw pour mu bañ a am barrière ba nga xamante ne am na yu bëri yoo xamante ne ñoom xam nañ ko ñu mën ko bokk ak élèves yi. Mhm. mën na nekk des moments de partage même bu fekkee ne service militaire obligatoire du loo xamante ne mën nañ ko def nii automatiquement fii Sénégal. Mhm. mais au moins moo am ay moments de partage entre l'armée entre la gendarmerie entre la police ba nga xamante ne yu bëri dinañ ci junj xale yi. Mhm. buñ leen ci junjee yu ci bëri. dina tax xale yi pourquoi pas une fois de temps en temps dans le, pendant les vacances prendre des élèves dans des dans le cadre des activités qui sont menées au sein de l'armée ou mhm. ailleurs la gendarmerie impliqué leen ñu dem mhm. wan leen def leen lii def leen lii ce qu'on fait regarde nous on fait ça lii la ñuy def mhm. fii au niveau de la gendarmerie lii la def au niveau de l'armée yéen seen école bu ngeen defee mën ngeen def la même chose en matière de civisme su ko defee xale yi âge boobu copier rek la ñuy def. Mm-hmm. s'il voit un modèle boo xamante ne lii. Mm-hmm. bu ma ko copier modèle bu baax la dañ koy reproduire ci seen environnement. Mm-hmm. donc moment yi ñu toll nii je ne pense pas que ni nekk nañ ci époque boo xam ne service militaire obligatoire mën nañ ko généraliser au sein du Sénégal. mais je pense que am na ay initiative yoo xam ne mën nañ ko jël pour créer proximité entre l'armée la gendarmerie entre autres et les élèves. de sorte que parce que ñoom sax métier yi métier armée ak yooyu parfois dañ koy bëgg a def mais day nekk genre mythe hmm. te proximité boobu boo xasee ba am dina am lu bëri loo xam ne benn hmm. héritage bu ñu mën a jël ci ñooñu hmm. te buñ ko jëlee dina xam loo xamante ne dina servir suñu école yi parce que boo xoolee armée xool gendarmerie ci suñu suñu armée saa yoo gisee armée Sénégal danga koy naw ci comportement ci jëfin ci defin donc loolu noonu xale yi bu ko gisee ba mën a copier modèle pour indiwaat ko ci école yi je pense que on n'aura même pas besoin de ce service militaire obligatoire mm. au contraire dina am loo xam ne cëral nañ jot nañ ko hérité ci ñooñu ñu mën ko indi ci école yi pour mm-hmm. defaraat suñu école yi mm-hmm. justement euh, parlant de journées culturelles ñi nga xam ne euh, établissement yëpp presque dañ koy organiser euh, est-ce que jotul tey ñu euh, changer Euh, li nga xam ne mooy journée culturelle yi façon bi nga xam ne moom lañ koy def parce qu'on parle de journée culturelle alors que boo xoolee ci biir euh, façon bi nga xam ne xale yi ñoom noonu lañ koy organiser y a rien de culturel. alors journée culturelle yi sa dépend aussi des écoles <laughs> mm -hmm. parce que je pense que journée culturelle yi bu ñu koy organiser école boo gis léegi Sénégal presque lycée yi collège yi ñëpp am nañ gouvernement scolaire mm -hmm. gouvernement scolaire yooyu ci biir gouvernement scolaire yi par exemple encadrement mooy tax journée culturelle yooyu comme niñ ko tuddee. mu mm-hmm. mën a nekk donc l' encadrement je pense que loo xamante ne lu am importance la. Mm-hmm. ndax ay xale bu ñu nekkee di def dara il foog mu am ñoo xam ne ñoom ñoo leen encadré bu fekkee ne encadrement am na bi dérapage du am. Mm-hmm. parce que dina am jàngalekat yoo xam ne dinañ nekk ci biir pour xool lu ñuy def fu ñu teg seen tànk ci lan la ñuy dugg ak nan lañ koy organiser donc encadrement tant que mu ngi am. journée culturelle yoolu mën nañ ko kon ne di organiser te activités yi ñu ciy def dina dina dina rentable mhm. am na ñoo xam ne dañuy def set setal mais est encadrement boobu ngay wax am na ci am na parce que man li may gis ci école yi bu ñuy wax journée culturelle euh, man gisuma ci dara loo xam ne c'est culturel. alors du lycée yëpp ak collège yëpp. voilà am na collège uh-huh. yoo xam ne y a l'encadrement. Uh-huh. parce que gouvernement scolaire boo gis normalement am na benn prof boo xam ne mooy responsable pour toppatoo xale yi. pour xool lu ñuy def. Mhm. pour coordonner seen activité. parce que déjà colin bi rek xale yi li ñuy sol bu ñu nee journée culturelle yaa gis xale boo xam ne da koy préparer yàlla laajte parent mi somme boo xam ne rien que pour dem jënd ay yére yoo xam ne bu ko solee rek dangay ngay désolé. loolu yëpp rek <laughs> <laughs> loolu yëpp rek encadrement bu ci amee. encadrement ba ca war bu ci mhm. amee xale yi duñ déraper. et puis donc, élection miss yi élection playboy fecc yeeg. élection miss yi man je pense que élection miss ak playboy mën nañ ko remplacer ak ay concours de lecture. Mm -hmm. concours d'écriture mhm. et de poésie. wala voilà, pourquoi pas miss mathématique miss français. effectivement miss euh, dans dans chaque domaine qu'on prenne les meilleurs pour valoriser leen. effectivement mm -hmm. effectivement donc classe bu nekk par exemple bu ñu xoolee ci classe cinquième yi wala sixième yi am na benn élève boo xamante par exemple mooy meilleur en maths mhm. am na élève boo xam mooy meilleur mhm. mhm. la place de miss miss pour la beauté ñu jël mathématique ñu jël cinquième meilleur bi en maths jël sixième meilleur bi en maths ñu def défilé boo xamante mën na nekk un un théorème sur les mathématiques mën na ku uh-huh. français aussi mu def même chose mm-hmm. léegi su ko defee ñu xool kan moo jël premier prix ci mathématique kan moo mm-hmm. jël premier prix ci français kan moo jël premier prix ci anglais mm-hmm. su ko defee loolu dinañ remplacer loo xamante ne luy tàddeelaate la def fa loo xamante ne dina amal njëriñ ñëpp et puis di pousse sax ñu jàng parce que parce xale ñoo bëgg en fait titre miss mais léegi nag miss boobu ci boppa dootul nekkati miss yaa gis miss boo xam ne elle n'a rien dans la tête miss boo xam ne mooy jël ndaara ci classe bi wala benn playboy. justement moo tax loolu nag concept boobu bu ñu ko amee. jël initiative bu jël miss miss bi missu classe bi mooy ki nga xamante ne. Mhm. mën na nekk miste parce que bu ñu waxee miss kese day mel ne dañoo exclure góor ñi. Mhm. alors que y a positive. ñu góor ñi ci lañ bokk moo tax ma ne playboy ñu dañ daan organiser miss dañ daan organiser playboy ma yaa gis miss boo xam ne mooy jël ndaare wala avant ndaare ci classe. moo tax nag bu ñu jëlee ki nga xam ne mooy meilleur bi. ci matière bi ak mhm. discipline bi ñu mett leen en concurrence mhm. su wala muy góor di jigéen su boobaa dañuy xool playboy bi nga xam ne moo dàq jàng mhm. moo moo dàq jàng ci classe am mais non seulement mais aussi moom moo wane ci ci ci liñ ko jël que ni moom moo ci gën a xarañ loolu buñ ko defee dina tax concept miss boobu nga xamante ne beauté comme li ngay wax ki ki gën a ki jël ndaare ci classe bi ñu war ko jël di ko valoriser alors que nekkul référence référence ci école bi ñu valoriser ñi nga xamante ne ñoom wane nañ xarañ ci njàng ñu jël leen comme mhm. exemple. gis nga loolu bu ñu ko defee dina dindi ay idée yu bëri parce que yaa gis koo xam ne day jàng day jàng mais. Euh, xelam du nekk ci ay fête xelam du nekk ci ay miss parce que danaan concept bi ñu am ci beauté tey mhm. surtout dans les écoles mu mu mu mën a changer en fait comme ça ku ci nekk daal war a mën a sentir sa bopp ci affaire yi. carrément te voilà loolu mhm. moo am Sénégal moo am partout fii ci Afrique sax booy xool. Mhm. tey yéen euh, enseignants yi yéen li ñu leen sas tey dafa diis. Mhm. yéen parce que yéen li nekk seen mbagg nekkul sax ci parent yi c'est vrai parents yi à la maison ñoom ñoo war a veiller. mais yéen li nga xam ne yéen yéen a koy def yéen yéen ay jàngal jox xale bi xam-xam non seulement xam-xam. mais àdduna aussi lu bëri aussi lu bëri yéen a koy def ci bopp xale bi. Euh, jotul ko si yéen ngeen changer approche xale yi changer tactique ak xale yi loolu mën a parce que génération 2000 yi nga xam ne ñoo doon toog ci banc yi tey nekk au lycée en l'an 2000 2001 ba 2005 tey du ñooñu ñoo nekk tey ci banc yi. <laughs> dëgg la Sylvie boo xoolee génération ñun suñu génération. ñun mm-hmm. amul woon bu amee télé peut-être benn télé ngay gis wala ñaar léegi nag xale yi ñoom ñëpp koo ci gis am na téléphone. Mm-hmm. lu mu néew néew di ci gis koo xam ne yor na iPhone man léeg-léeg dama leen tooñ sax sama classe ne leen man de téléphone bi ngeen yor sax aw ma ndax xale yi liñ naan génération high tech ñoom seen lépp ci réseau sociaux ak nouvelle technologie donc comme tu dis rek li nga wax léegi nii approche bi dafa war a changer parce que xale bi léegi boo nekkee classe boo ko jàngalee sax mu jël portable am xool ndax li nga ko jàngal dëgg la wala du dëgg. Mhm. donc ça veut dire bi yow sa bopp booy dugg sa cours. Mhm. war ngaa mën a def cours boo xamante ne lu jaar yoon nga fay teg. Mhm. wax lu leer boo ko fa tegul wax lu leer bu ñu génnee ne li nga jàngale baaxul. donc ñun suñu bopp. li li ñu war a def dafa bari parce que loo daan jàngale benn fi mu ne nii di ko jàngale fukk. te looy jàngale aussi day leer. bu weesoo loolu aussi réseau sociaux yi comme ni ma la ko waxee rek xale yi. dañ ko war a utiliser à bon mm-hmm. utiliser ko ba nga xamante ne du nekk loo xam ne lu leen di lor la mais lu leen di amal njëriñ la. Mm-hmm. approche pédagogique bi ngay wax aussi approche pédagogique il faut mu changer parce que mm-hmm. xale yi génération bi amoon ak génération bi am léegi du benn xale yi ñu amoon bu njëkk ba xale li ñu am léegi mm-hmm. benn mm-hmm. te yi léegi li ñuy xam sax par exemple jàngalekat bi léegi-léegi sax ñu dépassé la si nouvelle technologie par exemple ñu war la application boo xam ne da ngay toog di xool donc ça veut dire que ñun ñii suñu bopp sax li ñu waroon jàng benn dañ koy jàngaat fukk parce nekk jàngalekat ba pare sa euh, yow enseignant bi. Mhm. sa élève di la dépasser. Mhm. donc numérique bi ñun suñu bopp ñun tamit on doit s'y mettre. Mhm. mais da ngay gis enseignant yoo xamante ne par exemple boo waxee numérique rek. mooy pare nañ ci. te numérique nekk na loo xamante ne lay wan ne élèves yi seen bopp ñu ngi koy jàng di ko mën. auto formation rek la laaj. ku jël initiative ne naa ko jàng di ko mën a sa bopp. Mhm. te pandémie Covid 19 bi mu ñëwee wan nañu ko. jàngal nañu lu bari. jàngal nañu lu bari. Mhm. jàngal nañu lu bari te wan nañu aussi que ni. nouvelle technologie du loo xamante ne luy fànk luy luy fànk nit toujours la. tout mën na amal nit njëriñ parce que pandémie bi ñu bari moom lañ utiliser. Mm pour jàngale à distance. Mhm. te ñu bëri moom loolu moo tax. ñu liggéey effectivement. le travail à distance télétravail. Mhm. télétravail euh, ñu bëri euh, mosuñu ko woon a xalaat. Mhm. mais bi contexte pandémie ñëwee war nañu que ni on n'est pas toujours on n'a pas toujours besoin nekk. sur place même à distance. on peut régler beaucoup de problème donc nouvelle yi c'est-à-dire war du ñu def pour wan élèves yi que ni loo xamante ni da ngeen war a def rupture ak moom. mais dañ leen di war a wan ni lii. da ngeen ko war a utiliser mu amal leen njëriñ. Mm-hmm. mais pas mu nekk loo xamante ne daf leen lor. Mm-hmm. parce que da leen di lor bo boo boo leen dul conscientiser si loolu di nga gis élèves yoo xamante ne dañ ñëw utiliser image nit. Mm-hmm. te xamuñ ne ne droit à l'image tere na te sanction mën na am te léeg-léeg dañ koy dañ koy fowe. te harcèlement sax da ciy am parce que parfois violence dina am mooy cyber intimidation. effectivement ndax da ngay gis koo xamante ne dañ koy jël ci melokaan boo xamante ne gënalu ko. ñu yóbbu ko ci nouvelle technologie commencé ko partager di ko def ci Instagram wala ñu koy def ci Snapchat wala ñu koy def ci TikTok di ko partager ci WhatsApp. Mm-hmm. te fekk loolu ñoom am na ay sanctions yoo xamante ne mën na leen indil problème. année année dernière boo seetloo looloo tax après ministre bi jë génnee ci euh, arrêté pour wax ne nañ ko arrêté. Hmm. ku ko ci def aussi mën nañ la mën nga am ay sanctions. parce que hmm. xale yi seen bopp ñu ngi utiliser nouvelle technologie. Hmm. mais xamuñ lan la leen mën a indil. loo xam ne mën na leen fànq. donc ñun aussi suñu rôle la ñu leen conscientiser pour que ñu xam ne du loo xamante ne toujours da nga ko war utiliser pour le mal. mais da nga pour mu indil la loo xamante ne laa mën a jëriñ. am na solo parce que euh, yaa ngi koy wax sànq euh, technologie bi léegi avancé na de telle sorte que. yow boo dul jàng di ànd ak moom. yow mhm. yow da ngay réer da ngay mel ni sax ku obsolète yow mhm. yow sa bopp. parce que li xew euh, boo xoolee entre par exemple deux mille vingt et un mille vingt et li fa xew du xew en deux mille vingt deux. Mhm. am na loo xam ne dina xew en deux mille vingt et un. obsolète en deux mille vingt et un. du coup jàng la constamment. enseignant bi day jàng. élève bi day jàng. donc tey euh, suñu système éducatif bi ci boppam sax est-ce que jotul ñu changer ko. parce que boo xoolee le programme programme bi fi nekkoon en 2000. programme fi nekkoon en 90 programme njëkk ya loolu tamit war nañ ci wax de madame Sarr. <laughs> alors programme bi bon. xam naa jamono bi day dox. tey eh. gis nañ taux de chômage nu bëree. ñëpp di auto entre ñëpp di auto entreprendre tey jotul ñu changer suñu système bi de telle sort que xale bu ñu génnee rek wala wala dès collège déjà ñu am seen métier. pourtant ministre ministère de l'éducation nationale mi ngi ci dox ay jéego yu bari ndax euh, pandémie comme ni ma la ko waxee tax na ñu xam ne léegi on est à l'ère du numérique mm-hmm. te mënatuñu def dara sans les nouvelles technologie mm-hmm. donc euh, au sein du ministère de l'éducation nationale y a moom service boo xamante ne maanaam mi ngi dox ay jéego yu bari ci mbirum informatique boo seetloo euh, léegi ñun par exemple enseignants yi suñu bulletin de salaire soxlaatuñ di dox ma ministère des finance pour jël ko mm-hmm. sa kër ngay toog wala nga tëdd sa kaw lal nga dugg i consulter sa solde xool mm-hmm. xool sa virement salaire xool sa mm-hmm. lépp donc pour te dire que ni xëy na peut-être yéen xamu leen ko mais ñun ñu nekk ci biir système bi xam nañ mm-hmm. donc il y a une évolution quand même qui en train de de de maanaam en matière de numérique parce que ministre de l'éducation nationale non seulement euh, au niveau de du ministère organisé nañ ay ay cours en ligne. Mm -hmm. pendant période de pandémie bi. Mm pour que élèves yi aussi ñu jël leen en charge. ak Google Classroom. Mm donc euh, am na initiative yoo xamante ne ministre bi ministère bi mi ngi koy jël di ci ndox mm-hmm. ay jéego yu bëri parce que xam nañ ne instant yi moom numérique ku ko bàyyi rek. Mm-hmm. ñu bàyyi la si ginnaaw parce que mënatuñ def dara sans ah. sans moom. te boo xoolee d'ici quelque années eh, commencé na sax yenn pays européens yi di gis koo xam ne dina am ay diplôme am te du sa teg tànk école. waa enseignement à distance euh. lépp day changé lépp day changé en fait. mais boo gisee Sénégal tamit UVS université virtuelle du Sénégal mmh. boo gisee aussi mmh. créé nañ ko fii te loolu tamit boo gisee liñ ciy jàngale yëpp presque enseignement liñ lañ koy def donc Sénégal tamit nanguwul tam mm-hmm. toog ci ginnaaw mi ngi jël ay initiative yoo xamante ne bëgg na tamit wane ne que ni euh, jamono mi ngi dox mm-hmm. euh, on est dans une époque boo xamante ne kenn mënatul dox sans pour autant nga négliger nouvelle technologie mm-hmm. donc UVS boo gisee aussi initiative la boo xamante ne tamit ci dynamique boobu la jëm tamit donc voilà. d'accord ñu dellu si ci euh, xale yi nga xam ne ñoom la ñu war a juger je pense que vendredi bii la. Mhm. Euh, ñenn ñi relaxé nañ leen mais y a des mineurs yoo xam ne vendredi bii yow tey boo nekkoon juge euh, naka ngay tëralee ndax danga leen di bàyyi da nga leen di sanctionner da nga leen di dàq. alors man su ma nekkoon juge xale yi duma leen dàq duma leen yóbbu prison parce yóbbu leen prison pour man. mën na indi leneen mën na li ñuy bañ ci ñoom ci jikko ci loo xamante ne lu bon la ñu dem prison am fa yeneen jikko yu ko yu ko gën a yées mm-hmm. donc tey bu fekkee ne juge bi mi ngi may déglu man en tant que enseignante ak mère ah li ma koy wax daal di ko ko junj xëy na peut-être tuuti naa ci sax pour wax ko ko mm-hmm. mais dama ne rek jàngalekat laa mm-hmm. maanaam xale yi bu fekkee ne mën nañ leen yóbbu ci mbirum travaux d'intérêt général ñu yóbbu leen ci loolu bañ leen a yóbbu prison parce que prison du seen place. Mm-hmm. Euh, comme niñ koy waxee rek nañu tabax ay école te jéem a def loo xamante ni day tax ñu tëj prison yi ndax jàng jàng ak école nekk na loo xamante ne. lu bëri mën nañ def effort pour corriger ko au sein de l'école mhm. plutôt que dans en prison mhm. xale yi li ñu def man rafetlu ma ko comme ni ma ko dàq bi comme ni ko yaa waxee woon rek euh, madame Khadijatou Diallo xale yi boo leen dàqee tamit ci mbedd mi lañ jëm boo buñ demee ci mbedd mi liñ leen di bañ jikko bi ñuy jéem a corriger ci ñoom pour récupérer leen ci école bi buñ demee ci mbedd mi tamit lu ko gën a yées la ñuy def mhm. li mu waxoon rek ne mënuma leen bàyyi ci mbedd mi bu leen bàyyee ci mbedd mi tamit lu société bi lu ko gën a naqari rek lay am ci jeunesse am buñ leen mënee nañ leen junjaat indi leen ci école bi. Mm-hmm. def de sorte que ñu continuer sensibilisation parce que sensibilisation du mës a jeex. Mm-hmm. bu ñu leen indiwaatee non seulement war nañ leen gën a sensibiliser mais travaux d' intérêt général koo ko defloo benn yoon ñaari yoon bu ñu liggéeyee ba sonn dinañ xam ne ah. man lii dootuma ko defati. parce que mhm. boo seetloo aan aussi la fa amoon amaatu fa ren. Mhm. amoon na fa daaw mais ren dégguñu aan fenn mhm. ci coow parce que xale yi dugal nañ leen ci travaux d' intérêt général. te je pense que loolu c' est une sanction boo xamante ne du loo xamante ne da leen yóbbu prison. mais tax na ñu xam ne li ñu def foot la boo xamante ne foot bu garaaw la. te waruñu ko defati. te xam naa ne bëggatuñ delluwaat ndax baleeg raxas moom metti na metti boo xamante ne mhm. buñ la balelee école benn yoon ñaari yoon buñ la waxaatee ne lii boo ko defee dinañ la di nga defaat non seulement da ngay bale école mais dañ lay yóbbuwaat sax nga bale beneen école bi ci wet bi mhm. muy ñaari école su ko defee dina tax yu bëri dina ko dindi mais man daal prison pour man du solution du solution euh, madame Sarr daanaka euh, il nous reste euh, minutes mhm. mais actualité a wax ci baccalauréat Euh, li amoon ci bac technique bi jàpp nañ ay tricheur euh, mu doon lu doy waar tey vey bi yow ban conseil ngay jox xale ah xanaa comme li ma wax sama élève yi sànq rek balaa may ñëw fii maanaam honnêteté nee naa leen nit kuy bind mu euh, ngay def examen. Mm-hmm. man je préfère am benn zéro boo xam ne c'est un zéro bien mérité. Mm-hmm. que may am 19 boo xam ne bu ma ko xoolee sëgg honnêteté loo xamante ne la élève daf ko war a jikkoo mm. tricherie boo ko commencé moom ngay continuer te boo tricher école rek société bi tam di nga ci tricher. Mm. te loolu mooy indi ngay gis koo xamante ne dem na ba nekk ci euh, poste bu muy liggéeyee. Mm-hmm. muy détourner ay fonds. wala muy def nag su noonu. Mm-hmm. donc élèves yi ñoom ñi def bac maa ngi leen souhaiter ñoom ñëpp une bonne chance une bonne réussite mais di leen wax ne li fi xewoon 2017. ñu yàlla mu amati Sénégal. Mm-hmm. ndax ñoom war nañ góor góorlu ba nga xamante ne seen rakk yi nga xam ne ñoo ngi nekk première ak seconde ak ñi topp ñëpp. bu ñu leen dégg ñu leen dégg ci loo xamante ne lu rafet la. Mm-hmm. parce que ñoom ñoom ñooy defar ëllëg ñoom ñooy yor société bi. Mm-hmm. te war nañ ko yor aussi ci ay anam yoo xamante ne yu leer la mais seulement aussi ay anam yu jub. bëri na ci aussi ay xale yoo xam ne moralement yaa gis koo xam ne dina jàng mais bac moo diis ba xale yi dañuy tiit ba yaa gis koo xam ne day tiit ba du mën a bind kaa yooyu tamit day am dëgg la day am parce que stress farensaay mhm. moo tax toujours classe dañ leen di wax ne leen gestion stress koo xam ne day jàng euh, day brillant en classe bu ñëwee mhm. bac mu échoué waaw gestion loolu yëpp ci stress la rek mhm. maanaam gestion stress parce que souvent élèves yi nga xam ne dañuy excellent dañuy metre dañuy jël pression. Mm-hmm. mettre ko lu bëri seen kaw. donc li ma leen di wax mooy boo même bu fekkee jàng nga ba sonn tëjal kaye yi. Mm-hmm. boo xoolee ne comme tam suba la bac bi. surtout veille bi leer na ne da sonn doxal. Mm-hmm. doxal fais une marche. parfois man dama leen wax doxal wala nga dem piscine. sonn boo sonnee boo ñëwee nga tëdd nga nelaw. peut-être tey jii mënuñu ko def à la veille mais généralement boo stressé pour gérer bi jëlal sa temps. jëlal sa temps boo xamee ne tu te sens pas bien quitte à moment yi nga xam ne yow ko surveillant yi permettre nañ la nga génn mhm. génnal tout tu prends de l'air parce que ci gis ñoo xam ne sax dañ jékki-jékki rek xam mhm. parce que déjà bac bi mu ngi nekk ci contexte bu metti mhm. tàngaay lañ nekk classe yi day tàng dina metti donc boo ci bëggee boolee en plus pression sociale boobu noonu pour def examen donc da ngay am stress boo xamante ne da nga naan ah man de comme maa doon paye sama classe chaque jour ah, chaque chaque chaque kii semestre il faut que ma ma ma ma jëlaat paye ci bac bi donc il faut pas se mettre la pression. Mm-hmm. bañ a def jël stress bi jëm ci débarrassé wu nu nu ñu mën génnal nga yuuxu même boo yuuxu yuuxul ba sonn. Mm-hmm. parce que maa ngi fàttaliku sama benn cousine mës na di def teesam stressé génn yuuxu ba sonn ñëwaat ma ne du woon moom. Mm-hmm. donc nga dindi loolu yëpp ak ni ngay gere voilà gérer stress bi de sorte que. parce que loolu tamit sa serait triste quand même nga jàng. nekk premier di góor góorgóorlu ba yam fii. Hmm. mu des lu dul bac bi ba tam nga jël mettre sa bopp pression ba nga xamante ne euh, au lieu d' aller vers la réussite nga dem si échec donc. Hmm. maa ngi leen di conseiller ngeen def lu ngeen mën pour débarrasser au stress. Hmm. di leen souhaiter une bonne chance encore une fois. nga joxe sa mot de la fin ñàkkul euh, ñoo bëgg adresser un message. waaw maa ngi adressé message sama élèves yi encore une fois. Mhm. Euh, di leen surtout sama bachelier yi ak sama mhm. bachelières yi. di leen wax que ni maa ngi leen di ñaanal yàlla taxawu leen di ñaanal aussi sama lycée. Mhm. moom tamit mu am ay résultat yu baax muy cot muy BFEM bi di bac bi aussi. Euh, di di di di nuyuwaat sama yaay aussi. xam naa mi ngi may déglu. di nuyu aussi sama famille sama grande sœur bu nekk Espagne. ak ñëpp di nuyu sama njaboot di nuyu sama jëkkër. di nuyu sama doom yi aussi déglu di mhm. nuyu aussi sama proviseur ak sama censeur mhm. euh, di waxaat xale yi rek que ñu ngi leen souhaiter une bonne chance un bon bac boo xamante ne euh, maanaam mbirum tricher rek lépp loo xamante ne lu jubadi la duñ ko ci dégg bu soobee yàlla d'accord merci beaucoup madame euh, Ndiaye man madame <laughs> Sarr man man damay jublu je pense que maa def amalgame bi ba infogramme bi ñu ci affiche bi <laughs> voilà madame Sarr Ndiaye Thioro ñu koy gërëm bu baax mu tontu suñu invitation Euh, professeur lettres modernes nekk itam éducatrice liggéey am solo vraiment parce que sa genre yi rek euh, bépp enseignant bu ci boole woon yow ni ngay def je pense que du tey duñu toog sa ba di wax xale yi def nañu lii xale yi ñu ngi saccagé xale yi ñu ngi def lii donc dina am lu bëri li nga xam ne vraiment dina ko dindi yow aussi dañ lay encourager ci sa liggéey euh, di wax aussi euh, enseignants yi ñu roy ci yow parce que vraiment ñëw toog classe rek yow. di xaar weer bu dee nga dem fayeeku sa salaire da nga ko war a mérité itam du kese da nga ñëw dispense cours mais déedéet xale bi da nga ko war a gis mu am comportement boo xam ne demewul noonu nga woo ko donc loolu bu ko enseignant yëpp doon def am amour ci li def dina dindi lu bëri bëri ci biir école parce que yéenay passé plus de temps ak mmh. xale yi que seen yi ndax parents yi dañuy liggéey voilà di gërëm bu baax a baax ci euh, sa teewaay fii suñu émission euh, di fàttali euh, yaa nekkoon initiatives des enseignantes africaines durant la période de pandémie gis nañu liggéey bu am solo bi nga xam ne defoon ngeen ko euh, ci période mbasum coronavirus di la gërëm bu baax euh, di gërëm képp kuñ doon bàyyi xel jamono ji mbokk yi di gërëm Bachir Cissé mi fetoon ci technique bi li ngeen di dégg bu eggee seen nopp yi moom moo tax di ko gërëm bu baax euh, voilà mbokk yi ñu di dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité